salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gaa yi képp goo xamante si nii kontaan nga ci Boucher Ketchup ah képp goo xam ne nii gëm nga ne Boucher Ketchup dafa gore dafa mën nitam ah, képp koo xam ne nii gëm nga ne dafa am dignité am fulla fonk ay nitam du dem fu koy ñàkkal fayda wala boo xamante si nii day ñàkk dignitéem wala mu di ko perdre du fa dem nan waxante dëgg laalal ma kër yi parce que Boucher mii ku gore la ku man nitam la ku am dignité la xam nga démb waxoon naa leen ne leen Boucher boo ko joxoon ay milliards ne ko demal nga sinaabal ma Wally sekk toppal ma ko jëlal ma Wally nga toppal ma ko fu mu dugg nga dugg fa nga jëlal ma ko sa bee hôtel a ngi nii xaalis bu bëree ngi lii du ko def parce que dignitéem am ngoram moom moo ko ko dul may te ba ma koy wax boobu man ak moom waxtaanagul ba ma koy wax loolu boobu man ak moom waxtaanagul te xamul na sax doon naa live di wax loolu parce que man damaa xam Boucher dama koo xam géejawaay lañ dëkk ma xam ko bu baax comprendre ngeen dama koo xam xam ne day bëgg noo ko mën a waxal day fonk ay nitam buuse ku mu sinap ku mu sinap yaa ko fekk si fa mu nekk mu juum ba jël la wala nga fekk ko yow ci programme am mais du dem mukk programme boo xam xamante si nii waru faa dem muy sinap mais boo ko fayoon xaalis du ko def déglu leen audio yi buuse yi musuma partagé audio mais dama leen di wan pour ngeen déglu dafa am fulla rek waaw déglu leen ma ko nan déglu. mais mais mais mais Adamo man man man man man loolu da ci defaraan Adamo man barke Cheikhul Khadim benn fu ñu ma woowul duma fa dem benn man bañ na ko ba kenn du ma gis ci événement yu bari xam nga fu ñu ma woowul duma fa dem fu ma dem dañu ma faa woo jëlal ma billet avion jëlal ma nangam ak nangam woo ma benn mooy comme ni nga ko waxee rek. jotoo ma kenn dara aw ma kenn benn problème mais am na événement yoo xam ne moom franchement parler bu ñu ma fayoon dix milliards du ma fa teg sama tànk barki Serigne Saliou Mbacke waaw loolu moom am na loolu moom am na parce que sama ngor moo ma dul may sama ngor moo ma may ma taxaw fa di def yenn yi sama ngor waaw loolu moom dëgg la. Adama man nit su ma koy sinap sax jaarul sama tur ma jaar ci turam jaarul sama tur sax du dugg sama sinap man fu ma dem duñ ma faawoo barki alxuraan karim lii mooy fulla ma ne ko lii mooy fulla lii mooy fayda waaye ñu dénk la micro ay de king de bes de nangam buuse da laa buuse mënoo ko wax loolu mel noonu billahi wallahi wa taala dafa dul taxaw sax moom Youssou Ndour mi ku bon la ñaaxarin loo dagg ay yitteem ah, dem di ko wone ko grand Youssou faale ko mu wan ko ginnaaw di dem xooleen action bi ça y est, ça y est, ça y est, là, c'est parti. C'est parti. Grand. Oui, mais grand Youssou, si il est là, le meilleur. il est là. Staff planétaire. gis ngeen gis ngeen action bi ba mu la wuyul woon nga waroon na noppi mais waroo faa continuer waat nan ay bàyyi biraa nag bàyyi nangam ak bàyyi nangam jëlaat leen deuxième action bi. deuxième édition de Bercy bàyyi biraan Baye Nelson. gis ngeen deuxième action bi troisième action bi nag mooy lii bu la dalul woon ñaama rus ma xam ne kon Wally sekk du faramaarin bi muy woote nit da ngay diñ nga am fulla Ketchup sànq la message nee ma am na programme yoo xam ne buñ ko yoon dix milliards du fa teg tànkam moom wax na dëgg moom ku ñëw da koo fekk si wala nga fekk ko ci lim nekk wala lim moom mais du dem mukk foo xamante nii ah non c'est honteux li ma gën a metti ba gën maa metti ah mooy lii mooy lii lii lii lii lii. ñoom boss yaa ngi dem building. ñoom mais ñaa noo gisee Youssou Ndour. non the king the king la mooy le roi the roi the king of the king. mais Youssou Ndour lii musuma koo gis si àdduna. is the best the the big wallaay wallaay kenn du moom. kenn du moom ñaar ñaar sama xarit yee yee yee yee. seetaan leen réaction Youssou Ndour ba mu gisee ah. Ketchup parce que Ketchup dafa ñëw fu war a ñëw xool leen bu baax est-ce bokk na ak réaction bi ma leen njëkk a wan ba mu gisee ñaa ñaa da koo woo faalewu ko muy dem te kii da koo nuyu reetaan ko. le meilleur des meilleurs borom de fi mu eh. ko bokk. kenn du yow. waa ñaakarañ yow am nga ndam yaa njëkk a génne Youssou Ndour ci ay colisam lii mësta am man benn fan su Youssou Ndour bu mag a mag maa koy wax kenn mësta gis Youssou nduur ci ay colisam yaa ku njëkk a def génne ko ci ay colisam en direct mës nañ ko seetaan ci ay reportage ak léegi en kenn mësu koo gis man maa la ko wax kuy topp Youssou Ndour vingt ans moo la koy wax na merci beaucoup et du courage pour ni waaye ñaa xarañ jaajëf waay kuréel yu sunduur yi moom waxoon naa la 31 décembre yaa ko wane woon arena tey yaa ñëwaat kenn mosuma seetaan kenn ci sunduur yow gis nañ biir ay de kuréel yaa ko njëkk a wane kuréel yi jaajëf yesaay yesaay André de Paris mu leen di fàttali rek programme Wally Ballago Seck prochain concert bi ñu ngi jëm le vingt cinq incha allah yow yaa fekk lu amul dara nga def ci dara képp ku snap sa gannaaw la topp képp ku snap sa gannaaw la topp yaa fekk loo xamante ne amul dara nga def ci dara yow daal jàmm rek jàmm jàmm jàmm waaw. oui mais grand Youssou si am nañ la meilleur wallaay il est là star planétaire. après 12 après une douzième édition douzième édition douzième édition de Bercy bàyyi Birane bàyyi Nelson il est là il est là il est là il est là il est là